mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax fi may waxee rek mooy ci biir dëkk bi ak état bu Sénégal ndax sëñ baa ngi may fàttali rek euh, coow yi nga xam ne ni xawoon naa am fan yi rawatina li nga xam ne ni moo nekk ci biir dëkk bi réew mi doon loo xam ne Sénégal yi yëpp koy naqarlu doon xeex boo xam yëg ne am na luñ ñu laal sa xol te mooy banqaas bi nga xam ne mooy bi gënoon a rëy moo taxoon nag ma ànd ak sañ Ahmadou Tasrif mii ñu doon waxtaan ndax àdduna boo gisee laa lay may doole mooy diisoo jàpp naa nag président de la république li ko indi lu mel ni mooy ñàkk bañ a diisoo diisoo nag boo ko defee rek yàlla dana la dimbali ci lu bëri moo tax sëriñ bi ñoo jëloon initiative waxtaan ne euh, war nañoo mën a taxawal loo xam ne ni war naa mën a doon loo xam ne ku ko dégg mu mën laa jariñ waaye mu mën a doon loo xam ne mën nañ see trouver solution kon ñun solution ñu tax ju mooy problème yi ci dëkk bi ñu fexe ñu mu saafara woo loolu nag ci lañu wax ne nañ taxawal ànd saxal dëgg saxal dëgg gi nag ji ci jëpp bépp fànn bu mën a doon muy ci dëkk bi ñu dëkk muy Touba ci lépp loo xam ne dees na ko fi tudd ñu koy doxalee te jaaduwul yoon des na ko dees na ko leeral ba ñëpp xam ko mooy ci état bi lépp lu ñu doxal te jaaduwul yoon danañ ko leeral ba ñëpp xam ko Macky Sall nag liñ lay laabiré di ko laabiré Sénégalais yëpp nga xam ne ñu ngi dox ci lu mel noonu mooy ñaawteef gi ñuy bëgg a tàmbal nga xam ne egg na ci ñun ne amatul boo demee ba jël jigéen di ko dóor maanaam takk der jigéen jiital jigéen mu nekk sa ginnaaw nga jël sa loxo xaj ci dóor nga xam ne sax bu fekkoon jàkkaarloo yow am nga xam ne am na war naa mën a baare wala dara waaye jigéen ak ni ko yàlla melal nga xam ne kàttan xëy na bëri liwu nga mën a yëkkati sab loxo di ko toroxal loolu adduna sépp teg nañ seen bët waaye nag ñu tegaat ci it way ko nga xam ne kooku fa la yërmande war a tàmbale ak ñeewant nga mën koo jël di ko bëmax ak di ko tegi coono ñu ngi jëmmat loo xam ne nii buy këpp ci ñun léegi waaye nag it ñu ngi lancé un appel wax ne euh, dëkkub sëriñ Touba bi ku koy sàmm ak warma ñun la koy sàmmule ndax Cheikh Mamadul taxaal la ma daa wax rek man damay faral di saa su may ñaan ne képp ku ko yéene ab safaan yàlla na këppu ci sa kaw ndax dafa ànd ak ay magam walla ànd ak ay wajuram ànd ak ay magam ba ñu gërëm ko ba yàlla jox ko cër bii dama jàpp ne ku ko jàppaliwut ngir mu ñoŋu waroo ko yàqal waaye nag dafa am loo xam ne li li euh, wax ne alxaqu saabit wa amal baatilu wa in hadaa fa saafi loolu nag bu ko nit xasee xam la njëkk a jiital ci xolam mooy wax dëgg rek te yàlla tax ndigal bi mu jugee te Cheikh Mamadou Mountakha santane ko yaakaar naa am na lu ma demoon fii ci ci ci li ma wax jeunes yi mooy man bëgg naa xeex komba waaye nag cim xel lañ koy defee ndax koy àndal ku ne da ngay xool jël ci jikko yi te Ousmane Sonko mi nga xam ne dañ ko tegoon ay nattu teg koy coona ah, mooy saxal dëgg ki rek. dañ koo jaayoon doole ma na xeex buy am du toj du yàq kenn du xeex du toj kenn du xeex di toj di yàq waaye nag li ñu tuddee marche pacifique war naa mën a nekk ba tax na erreur bi amoon laa bëgg a leeral rek wax ne euh, bu ci seytaane jaar ba jaar dugg fu mu wër dugg dañoo dénk euh, sunu mbokki bàyyi faal yi fii ci dëkk bi Touba muy Touba ñuy sàmm war may sëñ Touba te loolu buñ leen ko dénkee yàlla na ndax Cheikh Ibra Fall li mu jëfal sëñ Touba ci ngir bëgg rek sëriñ bi ñoom buñ leen ko dénkee yàlla na te ñit ànd nañ ci ñoom ngir ñu sam ne ni daa jëlub otoom ñu ne dañuy manifester ci bokk ci lu ñu naqari xam nga loolu bu fekkoon état bi man rek man benn personne bi ba ma jigoon ne dama am lu ma naqari di manifester wu war nañ ma jox autorisation ngir ma wane sama sama naqar dem sama yoon waaye fu problème amee mooy dañuy dañuy dàq nit ñi li nit ñi bëgg a génne te mënuñ ko génne erreur boobu ci amoon nag laay xaw a leeral rek ngir bu ëllëgee doon dañuy xalaat dañuy sottante xalaat ngir dañ naan bàyyi Faal bi ne murit bi te muy benn banqaas boo xam ne moo ñu lënk leen muy sëñ Tuubaa rek lañ yaakaar léegi ñiy naqarlu ay murit lañ Tuubaa lañuy dëkk biñ ne dañuy manifesté wu ci oto lañ lañu dugg fuñ jëm Mbàkke kon bu baaraas amee rek ba manifesté wu am loola la ñu war a xoolaat mooy nit ñi bu ñu duggee ci oto yi nañ dañuy dem Mbàkke nañ leen bàyyi ñu dem bu ñu demee manifesté wu digaluñ kenn muy yàq wala muy def lu mu warut def waaye nañ leen bàyyi ñu manifesté wu ne suñu naqar ku ne dem ndax damaa jàpp ne am nañu am woor ma am na ndax ku dugg oto ne da ngay dem Mbàkke jéggi fi dëkkul Sëñ Tuubaa bi yaa ngi wormaal Sëñ Tuubaa bu fekkee nag teg nañuy barrage yoo xam ne nit ñi mënuñoo jàll ba nga xam ne xam nga jeunes yi léegi euh, seen xol la ñuy demee mooy indi jéye moo tax ma bëgg bu ëllëgatee kuy dem ne Mbàkke ngay dem manifester wu yow bu bu seen yoon nekk ci yow nañ la bàyyi nga dem sa yoon waaye bu ay nit jugee muy mbooloo moo xam ne Touba ni mu toll buñ jugee bëgg a génn ci dëkk bi nga nga gàntalee rek day indi urée te ñu ñoo bokk ndax boo gaañee Baay Faal yaa ëllëg yaay ñëwaat di ko masaw boo gaañee taalib boobu boo xam ne am murid la di Sénégalais dëkk ci dëkku Sëñ Touba bi yaakaar Sëñ Touba yow it euh, lépp daanaka ci suñ kilé gi fi lañ koy bëgg a delloo te boobaa liggéeyu seytaane la ndax ñun Sëñ Touba rek lañ bëgg a ñoŋal man sama depart loolu laa waxoon bu kenn dem Touba di fa manifester wala nga fay def dara loolu nag politiciens yi dañ koy waral ma bëgg a ne wax ne ne sëñ Mountakha it nañu xam ne ku set wecc la ci lii di Macky Sall di def loolu faw ñoo xam ko dama wax ne dañuy bëgg a jaawa eh, jaxase ñun taalibe yi diggante taalibe ku sëriñ ba boo xoolee léegi ñàkk war ma gi ñuy ñàkk war ma sunu kilifa yi looloo ko indi mooy dem nañ ba dugal ci taalibe yi ne leen sëriñ si waxuñ dem ba ñuy jaawale pas-pas ak naqar mooy nit ki bu amee pas naqar faaw dañ ko koy war a jàppale leeral ko feesal ne lii lii ñii kat lii da leen a naqari bu ko defee sam xol mën a set sëñ Muntaxa nag da ca njëlbeen nga lene luy politique amu ma ci defar amu ma ci yàq bañ na ko ba fomm na nit ñi ay ay yoon yoo xam ne danaan day dallu noppul politicien nag moo baaxoo saa su defee jéem wala toj tojam même bu wut tubaa dara sax danañ fi dajale oto yu bëri bu ko defee ñu ne ñëw nañ ci kër sëñ sëñ Muntaxa ga bu ko defee nit ñi seen xel yi ñax-ñaxe fekk sëñ Muntaxa lu dul lislaam amut ci defar amut ci yàq suñ jotaay bi it lu dul Sénégal jag taxuñoo jug bu ñu sanoon Sénégal dafay day jag tegu ci yoon élection yii maanaam day sart réew moo xam ne ni moom la ñu desee ci bànqaas bu dëgër kon Macky Sall li ko Sénégal yi ji ci tiraanga kon waroon na leen ko delloo ci organise élection yoo xam ne ñu ko sëñ bi waxee xabla salaam ak ba'da salaam day am waaye loolu ñaareel bu nit ki juumee lay doon mooy ci njëkk ji wala ci mu gi nit nit nit Babacar Seye faatu na waaye wutaan na ñeneen ñoo xam ne ñoo ko mottali élection am kon moom ah, dama naan cat la sax ndax dem ba ci ci pàndaw li nga organiser ba nit xëy dem campagne lii ñëw kenn xamut lu mu doon comme jataay bi daa xat nag nañu ñu ngi jox sëñ Euh, sëñ Ahmadou Tasrif moom it mu yeggale ci wàllum li nga xam ne mooy li waral euh, jataay bi incha allah maa ngi jégalu bu baax nag ci kàddu